أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال انا انزلناه في ليله مباركه وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اقرأوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة shafi'an li ashaabi kon nag mbokk yi sant yàlla bu baax ñu ngi ñëwaat tax yéen ci waxtaanu koor gi di nuyu ñépp wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla tawfiixul ilaahi ñaan yàlla mu defal leen sutura bu baax tey ñu ngi ñëw ci ngëneelu koor ak alquraanul karim buñu waxé alquran rek mu melni da nga nan anniversaire am ñewna muy wéru koor wéru koor ci lañu wacce alquran yàlla am fu mu tuddu ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wacce na ko mom alquran ci guddi dogal gi guddi gu barkel gi bon guddi la mbokk yi mu melni bon xamuñu ko mu ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka wàccee naa ko ci guddi gu barkeel gu bari yiw lool kon ban la mubaaraka boobule mu mel ni xamuñu ko waaye suñu boroom ne shahru ramadan allazi unzila fihi alquran ah loolu ngeen doon laaj loolu ngeen xamul woon kañ la fan laa ko wàccee mu ne fii شهر رمضان هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سلاكو واتشي هدى للناس moom alquran dafa ñëw ngir jubal nit ñi moom alquran bari ay ngëneel lool ku ne war si góorgóorlu bu baax mbokk yi rawatina fan yi gis nga bu ñu daan toll fii ci koor gi tafsirul quran yi macha allah manqué na ñëpp waaye yàlla moom mooy doxale noonu conférence yi yàlla mooy doxale noonu waxtaan yi un peu partout yàlla mooy def noonu le waaye fi ñu mën a jaamoo yàlla moom du fi jóg du fi jóg mukk ala kulli xaal kon jàkke yi nga xama dañ ne temporairement tëjënd nañu ko ci waxin parce que mbas mi la waye ñu ngi ni tay ci biir jàkk ji di waxtaan mu ngi mel ni yéen ñiy seetaan yéen a ngi toog si jàkk ji ax ñun kon jàkk ji tëjuwul te du mas di tëju foo dem ci àddina bi noonu la kon dajaloo bi la ñuy moytandoku mbokk yi te dajaloo bi suñu musiba la xolal yonente bi waxul sax virus waaye dane ku lekk laaj wala soble sax bul dem ci jàkk yi boo ko lekkee xet gi des si yow mu ne la bul dem massa virus kon kii dem ci jàkk dalay wóor ne ne sécurité mu nga fa doo lor kenn kenn du la lor xalal xet guy bàyyeekoo si soble wala ci laaj wala yu ni mel ba nit ñi ñëwee jóge fu sori mu ne suñu yaay Aïcha teewoon nga digal sa gan yi bu ñu laa julli ji ñu sang seen yaram yi maanaa ñu laal ndox ndax xeetu ñax bi dox bi poussière bi kon nag virus moom kenn waxatu ko kon am na xam ne boo ko nattalee ci jëfu yonente bi rek da ngay xam ne lii day lu ñu war man moytu ndoku la waaye mbokk yi alquran mu ngi àndandoo ak ñun jamono bu ne kon war na ñu jël lenn ci ay ayat lenn ci ay suwar di ko def tafsirul mawduin ngay xool ayaat yooyu wala saar yooyu le lan mooy seeni tenant et aboutissant lan la ci yàlla nam lan mooy ad duruus wala ibar fi hadihi suwar aw fi hadihi l lan mooy enseignement yi ñu mën a tiire ci ayaat yooyu le nga jël bu la neexee yi ngay faral di jàng jamono bu ne wala yi nga xamante ne yomba na mokkal muy saaru suufi wala ay ayaat yoo jukki jël mooy nga ne ah danaa jël vingt trente walla dix wala nangam kon nga am loo jël ne lii day ci alquran bokk na ci ngëneelu yooyu ci biir alquran nga jàngat ndëk saar bu ci ne lan la si suñu boroom bëgg nga mën a jël misaal ci lu bari masalan nga ne ah araayta allazi yukazibu biddin fa zalika allazi yad'u al-yatim ba mu jeex lan la ci suñu borom bëgg nga xool ayaat yooyu le nga ne ah wàcce woon na ci yéefari màkka yi de cité woon nañu ci diw cité woon nañu ci diw ñoom day parce que ñu ngi doon diingat diine parce que ñoom day gëmuñu woon yonente bi sallallahu alayhi wa nga ne kon dëgg man war naa gëm diine war naa topp li yonent bi jàngale woon sallallahu alayhi wa sallam ngir wuute ax ñëli nga ne bonkat ñoom daanan xañ njirim li ko yàlla sédd daawuñu encouragé kenn ne ko del dimmali waate waaw wala yaxuddu ala taamil miskin duñu ñaax kenn ne ko dimmaleel ku dul dimmali waate doo ñaax kenn nee na bon nag mën naay dimbaliwaate su ma ko mënul it même naay seet koo xamante ne na buma ko waxé mu déggu ma koy ñaax ne ko dimbalel ñi néew di doole kon yaangi jàngat sar bobu le lan la lay wax nga jim ci téggu alquran ci bir wéru koor nga ne waaw lolu buma ko xamé ba nopi na ko jëfe ndëg afala yatadabbaruna alquran ngeen di càmbar alquran di ko lëñbët di xool lii la yàlla wax dégg naa ko naa fexe nag jëmmal loolu ci jëf ci wax ci comportement mooy la yenente bi suñu yaay Aïcha waxoon ne kaana quranan yamshi ala al ard alquran la yu daan dox yow noonu nga war a mel man noonu laa war a mel keneen noonu la war a mel laa tufsidu fi l ardi ba'da islaqiha am comportement bu yiw di dox ci lu baax yërëm njërim yi tàppoo leen dimbali ñëw di doole yi kon yooyu dañ ko war a jàng ci biir weeru koor ci biir alquran atte yi ci nekk yépp ñu mën ko jëfe mbokk yi noonu nga koy jàppoo ci yeneen aayaat ci yeneen saar boo ko defee rek yàlla mën na la dimbali Umar ibnul Xataab daana wax ne benn aaya danaa ko jàng ci fukki fan mu door a mokk ma avancé kon du mokkalu xefs rek par cœur déedéet baax na naam waaye bii gën mooy nga dégg sens bi boo ko déggee nag nga jëfe ko kooku mooy kii mokkal alquranul karim alquran mbokk yi nuur rabbul alamin mooy leeru suñu borom wa rahmatuhu lmuhdaatu lil alamin mooy leeram mbokk yi ci kaw suuf mooy gindi addina bi yépp moom alquranul karim qiraatuhu ibada toog di jàng alquran mbokk yi jaamu yàlla la wa tafakkuru fi ayatihi ibada toog di di jàngat di càmbar ayat yi di ko firi ñu la koy firil nga koy dégg kooku jaamu yàlla la waaye nag boo ko jàngee boo ko defee tadabbur boo ko mokkalee wala amalu bihi nag waajib jëfandikoo la nga jàng nag nekk wareef léegi nag loolu bokk na ci ngëneeru quran ci biir weeru koor alquran ay ngëneelam mbokk yi daf lay may tumanuunatil qalb tumaniina da ngay am équilibre da ngay am tranquillité da ngay am ak dal suñu borom nee ne allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatmainu alqulub ñi nga xam ne gëm nañu yàlla am dal am tranquillité lu leen ko may mu ne zikrullah mbokk yi te bëggën màgg si zikrullah mooy alquranul karim am na yeneen azkar dinañ ci ñëw dangay am dal da ngay am tranquillité gis nga feebar bi xew ci àddina bi muy mbas yi bari jàng alquran daf lay dimbali kon man ngeen tëju ci kër yi ñeenti nit juróom man ngeen tëju ci bërëb yenn yi lim jël seeni matuwaay jàng alquran ñaan maa ngi ñaanit njiitu réew yi kilifa yi nañu lu ci loolu di sant ay nit ñuy jàng alquran parce que ñoom ñooy responsable umma bi su ko defee yàlla mën nañu teggil waaye tamit da ngay yëg ashuur bil farax boo koy jàng moom alquran da ngay am mbégte da ngay yëg bonheur boo xamante ne dara mënu la ko jox lu dul alquran ndax yaa ngi branché wu directement yàq sa borom loolu moo tax ngay am mbégte parce que waxu borom bi la subhanahu wa taala da ngay yëg force boo xamante ne énergie boo xamante ne mënoo xam foo ko jëlee te li la koy may mooy jàng alquranul karim mbokk yi تنيد دعاي أم رضا الله في توفيقه في شؤون الدنيا دعاي أم بركة الدين فوجم يعني أنده ليرو يال ليرو يال كو أنده موم تلو نكرك بركة غفاي أم تيد ألق دعاي تخي الجنة يال نوك يال دفل يال انتبهني في جيدان له اقرأه القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أمول سكسا كان جنجم القرآن تيويرو كور bokk na ci jëf yi yàlla gën a bëgg kon nag mbokk yi weeru koor ngi noonu weeru alquran la alquran mooy suñu dustuur mooy suñu constitution mooy suñu lépp mbokk yi ku nekk jàppal ni foo nekk rek war nga jàng alquran war nga mokkal alquranul karim ah man day te barayaane ci ay moroom mokkal kaamil bi yépp mokkal benn saar ma ndey moo ma ko gënal mokkal benn saar mooy lan mooy xam lan lay wax xam lan lay digle xam lan lay tere waaye nga jëfe ko kon nag yàlla nañu yàlla xiir ci alquran alquran yàlla nañu wàllu xat-xatu bi yàlla nañu ci yàlla defal barke ci barke alquranul karim yàlla na yàlla def suñu xol yi di naat di dund ci leeru alquranul karim yàlla nañu yàlla daxal bépp jàngoro bépp tawat lépp lu ñuy ragal ci barke alquranul karim yaram yi diis yi ay gàllankoor dugg yàlla nu ko yàlla teggil ci barke alquranul karim allahuma ajalahu alqurana rabia sudurina mooy nëtaxu xol mooy verdure bi ñu war a am nga xam ne da ngay dem ci environnement ci verdure xool ko di bég mu ne alquran yàlla na yàlla def mu nekk ci ñun loolu le ci barke alquran ci leeru alquran ci ngëneelu alquran yal na yàlla defal jàmm yal yàlla defal ñëpp tawfiya kon du tëj lu jox leen rek ne nañu góorgóorlu muy yóbbantul tay bi mooy fu ngeen mën a nekk rek day leen def zikrullahi moo xam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu